delloo njukkal euh, Mohamed Fall euh, dix mille problèmes mi toog ak El Hadj Pape Thiam El Hadj moom UCG mooy vice-président commission sociale El Hadj Pape Thiam la nuyu la lan waaw Tunkara c'est vraiment un plaisir pour moi vraiment ma ñëwaat ci plateau bi bokk ko ak ñëw nuyu naa la. Mohamed Fall dix mille problèmes di la ziar. jërëjëf salaamaaleykum salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuy Tunkara te di la nuy yow. di la jaajëf di nuyu waa télé yëpp ak caméraman yi ak Sénégal yëpp. yow euh, tey sa bët yi dafa xonq de. Mm-hmm. lu tax day xonq rek ndax damay mer rek. sama bët du weex mu. Mm. Mm, non non bon euh, temps jàppoon nañ la fii parce que da dañ la jàppoon ak yàmba. non ah, lu tëj la. yàmbaa nañ ma yàmbaa mais loolu yàgg na. waa bon boobu laay wax. yamba bi chaque fois da ngay indi ay mots nan ay jàpp na fii lii jàpp maa ngi ñëw yow tamit. ayca may laaj déglu. bon yamba bi ñaata fan lañ la tëjoon. wax na waxu yàmbaa waxu sénégalais la ñëw wax waxu réew mi quoi dañuy dañuy jógee foofu dëkk bi ñëpp ay tox bon ñëpp dëkk bi ñëpp ay toxaru yamba ba seeg maa wala kii dëkk bi ñëpp ay tox bon. waaw ah, mais du ñëpp lañ jàpp di leen tëj ndax bon. déglu ma rek yow dañ la jàpp tëj ndax bon waaw Baye man benn jeune lan ma jàppee nangu naa ko dagg sama rase yi yàgg na waa ji ma jàpp mu ngi nekk Mbàkke il s'appelle Siteu te policier bu bon moo ma jàpp añaan ndax benn juin <laughs> mais dañ koy tere mais da koy tere mais nit mais mi ngi def lu gën a weng te kenn jàpp ko bon léegi est-ce que bàyyi nga juin yi yàgg na wóor na bàyyuma dara lu ma neex lay def point dañ lay delloo fële de kaay moo la sa waay bay fa ña fa dem dañ ma gën dégg ma reyu mu nit du ma dina après Macky Sall xool ki taal na yamba bi nekk Casamance yëpp. bon léegi yow euh, tey tey 10 000 loo bëgg leeral tey. merci jaajëf waaw li ma bëgg leeral mooy wax ak maanaam te wax ak xool Sénégal yi wax ak opposition bi wax ak opposant yi wax ak pouvoir wax ak Mansour Faye wax si affaire kaar yi wax si jeunesse bi quoi ñu ngi jëm élection 2024 gars yi neen dana bëgg taal réew mi. Macky Sall mu gëpp taal mooy suñu la vérité mu neex mu naqade mooy suñu président gars bu leen fàtte 2012 bi yàggul bi ñuy ab lay Wade di xeex monument bu nu fàtte loolu Sénégal bàyyi bi mu développé yàggul tey ñu ngi xeex quoi bëgg rey nit ñi bëgg rey jeunesse bi grève suba ngoon marche suba ngoon fii kenn moomu de ku ne am nga foofu far ku ne am nga sa candidat ni ku ne am nga koo xam ne yow kii moom nga valoriser man de duma ma dépasser présent un man du ma saaga présent deux jamais parce que je suis sénégalais ba pare ma du ma roy ñu nekk Europe nekk Europe jàkkaarloo ak yi di saaga sénégalais yi di wax sénégalais yi loo nekk parce que loi Europe ak loi Afrique bokkul fii dëkku Sëriñ Tuubaa la bàyyi sénégalais yi dañu war a nekk ay nit nanu nekk nanu nekk ay nit nanu nekk ay nit quoi fii ku fi dee yaay perte man marcelu ma kenn de à travers sama communication sama wax nekk ak li nga gëm non yow loolu booy yi marché dañ ko gëm non booy yi marché nanu marché parce que marché boo gis am na ay sàcc digg naa ko sànq am na sàcc am na taal pëno am na dajji magasin jàmbur am na fobeereel nekk si yoon bi. mais saay saay ñoo say rax. non du su ñàkk non noo day fees dell ak parce que mais xëy na dëkk bi. non mais li grave du du marche mooy peut-être mortal combat woote nit ñi pour ñu dee loolu mooy mooy lu grave. mouvement boo gis mu am muy marche muy programme muy show gars yi daan fa rax ndax yaa amul ñoom si loolu na ne jaare man nag du ma ma ma ko mos a dépassé ndax mooy sama président. mu neex la mu naq naqadi la. ah yoon da koy tere de dépassé président moom yoon da koy tere moom. mais ñu ngi koy article quatre mais mais ay nit a ngi taxaw jàpp président di ko saaga. mais xoolal ma loolu. di wax lu non taxaw rek di wax lu bon si moom ñoom dañu yaakaar ñu ñoo gëm Macky Sall ñoom. Macky Sall yéen ko fal Macky Sall yéen ko fal yéen a ko xeexal fii 2012 bii bi mu paasee yàggul ñi mel na ay dëmm tey ñu ngi naan ay dëmm. xëy na donc waaw waaw waaw léegi Mohamed. taxaw rek nga calme tamit. parce que non damay calme quoi mais xëy na commencé tàng. waaw xëy na dëgg la. Sonko baa ngi Sonko xëy na jeunesse bi ñoo ko bëgg. di la vérité réew mi kenn du ko tàlle te fii dee yi Sénégal yaa gën am ay dee. nguur Ablaye Wade bëgg la Joola ba ñaata nit a dee. deux cent deux ay deux mille nangam. ay deux mille quelque ñoo dee. si Bëtëla Joola accident chauffeur yi passé nii passé ay quarante personnes dee soixante personnes dee loolu du problème mu état loolu problème mu xam nga lan la maanaam wet état am na si responsabilité mais surtout Mansour Faye bu la dénkee mbir xam ñu lu suñu problème ñun et la ko jël cash ñu liggéey si temps bi maanaam ñu liggéey dëkk bi mu am deux fois oto yi def nii ba pare charge yi ñu teg borom oto yi dafa metti dootoo dawal guddi heure bi doo dem yooyu amul lool du solution. boo xaaral Pape Thiam. aywa yow euh, UCG nga nekk. tey euh, UCG mooy ñi nga xam ni ñoom ñoo yor wàllum nettoiement ak propreté. ci ci réew mi maanaam wàllu mbalit. xaar ñëw da koy leer ndax gars yi xamuñu UCG danga nga naan oh, UCG mooy ñu affaire mbalit. ñooy fobeere léegi UCG ñoo yor mbalit mi. voilà euh, te sunu wóolare Mass Thiam di ko jiite. Mm. tey li nga bëgg leera lan la. waaw avant tout d'abord euh, je pense que man li may wax je prends le peuple sénégalais en témoin je prends aussi l'état du Sénégal en témoin mais je prends aussi euh, les députés en témoin euh, Tunkara euh, ça fait vraiment plaisir ma ñëw toog fii tey ci sa plateau xam nga lu tax dañu jóge ci phase boo xamante ni mooy phase UCG donc muy unité de coordination de la gestion des déchets yàlla dimbali ñu ñun en tant que de travailleurs ñu am benn rêve boo xamante ne bii depuis Léopold Sédar sengoor ñu ngi koy rêvé mais yàlla dogal Senghor ñëw na ba dem musuñu réaliser rêve boobu. muy lan donc Abdou Diouf ñëw musuñu la ko réaliser Ablaye Wade ñëw musuñu ko réaliser mais mu ñëw ci eeru ki donc man en tant que travailleur ak l' ensemble des travailleurs ñu ciy gërëm le président. muy lan muy lan muy ñun dañ doon rêvé pour que ñu jëlee ñu ci informel bi indi ñu ñu formaliser ko tey aujourd'hui on est devenu une société nationale loolu nag vraiment ñu ngi wax respect au gouvernement di tamit euh, sargalaat suñu ministre de tutelle Abdoulaye Seydou Sow mais aussi di ko sargalaat ci beneen ak bu mu posé boo xamante ne bi injustice bu ñu doon xeex la Tunkara depuis dix ans 2015 la ñu jëloon ay journaliers. Mhm. journal yi di liggéey ànd ci ak permanent yi ñu def ay résultat yu positifs sur le terrain ba sénégalais yépp à l'unanimité ñu gëm ne UCG ak les agents de la propreté ñoom ñooy les meilleurs au Sénégal. Euh, balaa nga yeggali Pape Thiam. UCG. bi Mass Thiam man damay delloo njukkal ñaar. benn euh, ñett sax benn Mass Thiam. bi mu ñëwee léegi gis nañ ne que liggéeykat la te ñu ngi doxal. absolument ñaareel bi yéen syndicalistes dama leen di delloo njukkal ndax fi ngeen ñëw toog sama plateau ma ñaan leen. ni leen nañu jaayante ñaari at bu kenn grève ñu bàyyi maas Thiam mu doxal mm-hmm. ngeen nangul ma ko te jëfee ngeen ko mm-hmm. vraiment maa ngi leen si delloo njëkkal ñetteel bi nag mbooleemu liggéeykatu UCG parce que ñun ñëpp dañ teg suñu bët ni que suñu réew dafa gën a set mm-hmm. depuis bi fi UCG nekkee waaw gis nga nag euh, liggéey boobu xam nga moom laay woowee Mass xam nga nag man je ne suis pour politiquer kenn ah. ñëw ma aussi pour jéem a wax sàmbay mbayaan kenn parce que loolu intéressé wu mais olof yi dañuy wax ne ku def lu baax nit ñi war nañu am reconnaissance di ko tudd donc Mass bi mu ñëwee dafa ñëw fekk UCG amoon beneen beneen visage bu ko sénégal yi di xoolee donc moom mu ñëw révolutionner euh, li nga xam ne mooy le secteur du nettoiement moo tax à chaque fois damay toog ma ne ko yow laa tuddee monsieur OIR mooy il a osé il innové mais Mass il a réussi loolu aussi ñu ngi koy wax chapeau parce que aussi xam nga Tunkara réussite masse dafa fekk ne masse dañ ñu ko andi ah vraiment mu war a mën a diriger mbalit mi waaye daf fi fekk ay nit yoo xam ne ce sont des citoyens. non euh, loolu lu am la léegi nag. Ah, euh, muy des travailleurs. Euh, xaaral ñu wax ten kii 10 000. 10 nga wax ñu yow sa message bi nga bëgg tey ñëpp mu leer si bopp ñëpp lan la. bon li ma bëgg rek mooy maa ngi remercier sa waay tamit quoi. Hmm. parce que UCG tamit ñoom ñu ngi liggéey quoi. waaw ah, yow tey nag dafa mel ni tey da ngay ah, laal fi laal fële. mais il mais UCG man gërëm naa leen ba pare doy na. parce que man damay gis samay samay samay doomu ndey lañ. waaw non UCG du Medina rek. xam nga man dañuy gis ni que dëkk bi dafa gën set. man nekk ma benn nit boo xam ne ni te fii laa far rek damay xas kii quoi man je suis sénégalais je suis. Ah, citoyen yow yow rappeur nga aussi. waaw mais yow génnewoo album génnewoo single dafoo amoo prestation amoo. yow dugal YouTube nga génnewoo single. génne li nga wax lépp nga génn naa ko. ok dugal YouTube nga def 10 000 problème nga xool. 10 000 problème sa sa album bu mujj ba nu mu tudd. dugal di gis lépp. non sa wax ma sa album bu mujj. naan mu teg waaw. ah sa album nu mu tudd. dugal dugal defal 10 000 problème rek. so sa album nu mu tudd. dugal fu la neex. mais sa album nan la tudd wax ko bàyyi ma wax li ma bëgg wax quoi ay album moom yooyu amul sens mën nga nekk am album ñu li ñuy intéressé mooy jàllale message pour <laughs> citoyen mais amoo album tamit alma génn la ko xamoo mu tudd alma génn la ko bon léegi nee nga bàyyi nga tox yamba maa doon naan sàngara déggoo ma la déggoo ma la xanaa tunkara hmm. ah nekk comme ni ko xam dama naan la du ma def lii damay def lee déedéet damay def lii yamba bi moom fii nga ñëw ne yow doo ko tox après ñu jàpp la ngay tox. doo bàyyi genre mots yi nga nay répété yow yow kilifa nga ah. quoi yow chaque fois tu même moo bàyyi lii defal lii yow moo ma ma yow bokku ñu nekk yow jëndoo ma yow juróo ma. sa doom li muy def sa doom ko doon gis da koy rendi mais sama wóolare nga. non dama lay wax il faut ràññi tàngit. waaw ñu wax loolu ànduma si de ay nit dañuy bu ñu ànd dañuy waxante dëgg yow sama wóolëre nga waaw sama nit nga am naa sañ-sañu digal la lu baax tere non non sa waay man bonuma dofuma ñàkk ma fayru ma yenn mooy du ma ko nekk sax fii di ko développé mel ne benn comédien je suis pas un comédien nit la bu am sama message ah pour yow loolu comédie la affaire yamba comédie la wax naa li ma sax jaanax nee dëkk bi ñëppay toog bon wala gëmoo ko yàlla xam na ni boo génnee si dëkk bi tokkatu yàmbaay yi xoolal àdduna bi jeex mais man du ma tox bon xamul mën ngay fóon eh? mën ngay fóon ay affaire wala def leneen non non fóonu ma dara non si bu am na drogue hmm. am na bon loo hmm. foog si Tounkara yow non foo toxuma mais man toxuma fóon jëluma am na dëkk bi chaque fois ni ko dof ñu ne ko dofloo ku dof ñu ni bon ay waay Samba Tounkara bonee sonn Macky Sall dèjà xool taal na yamba bi yëpp nekk Casamance. mais man toxuma bon dëluma rek. non man toxuma man nekkuma fii di raay bokkuma ñi ngi indi fi ñuy takk karafaat den ay nii man duma tubaab. man je suis un tubaab nit ku ñuul kuk Sénégal pire dew ma Europe je suis fier de Sénégal et pays xam nga ma intéressé wax ak la le peuple sénégalais. wax ak la jeunesse waxal sa wax ak nit ñi. waxal sa message de un. Hmm. Mansour Faye yow laay waxal maire Ndar Géej waa mais sas bi nga teg chauffeur yi metti na un yóbbante la bu jëm si yow. deux deux. sas bi mu teg chauffeur yi dafa tar. waaw loolu waxoon nga ko léegi deux lan la. ñaareel bi. bu wet monsieur le président Macky Sall maa ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla wér ak gudd fan na xam ni Sonko mooy candidat Sonko mooy élément am Sonko mooy membre am ñun war a waxal xam nga ñan la mooy le peuple sénégalais maanaam sensibiliser la jeunesse. Sonko nan la nekkee candidat président. waaw dégg rek mais benn opposant la am. mooy candidat mooy opposant kon maanaam Macky benn opposant la muy Sonko mais xëy na jeunesse bi topp na ko léegi. wet fan la ne jaar xam ñi naan ay réew mi day tàkk ak naan dëkk bi nii Sonko dama koy wax dëgg Macky ma wax ko dëgg Sonko na xam ne du président Sonko du président de. opposant la opposant la Macky Sall mooy le président. moom daf ko bëgg daaneel. xam ne affaire politique la rek ñoom seen biir la boo xoolee temps yi passé y' a quatorze personnes mortes ñu koy jiñ kii di ko jiñ kee mais ñoom ñaar ñëpp la Sonko la ak Macky Sall. ndax Sonko tey bu taxee xam nga boo nekkee benn homme de euh, messager nga taxaw téye sa micro nii wéy nan réew mi am na loo xam du communication li si Sonko la jëm maanaam je parle de cadre de communication ñun bu ñu kenn euh, sacrifice de quoi. léegi euh, Mohamed dañuy ñëw xaaral Pape Thiam joxe message après nga may ñu benn son ñu déglu. dooruma son damay wax wax moo fi ni damay wax. mais mën nga wax si non dama lay wax rek li fi nekk laa lay wax ak nit ñi li ñuy jàmbat Macky Sall laay demandé ngir yàlla. je demande monsieur le président yàlla xam nañu ko la gerte caaf sax léegi cent franc la jar cent franc. ah lépp yokku. lépp a yokku léegi ma xam li problème bi. Hmm. Macky na def li Sénégalais soxla na wàññi dund gi dëkk bi métti na de Baye Fall mais xëy na ñoom ñu ngi noos ñu ngi lekk mais temps bi dafa tare bon yow à part lan ngay job yu ñëw léegi nga jeexal euh, El Hadj ce message lan la. waaw mais nag euh, Tunkara xam naa ne euh, macha allah moom aussi il est venu vraiment pour parler donc respect rek la ñu am ci moom aussi. mais li tax ma lay wax mooy. Mhm. yow en tant que euh, journaliste. ak waa 2STV su ngeen defoon micro ñu mhm. laaj peuple sénégalais bi di de mille vingt. Mhm. ba deux mille vingt trois ban société moo ëpp performance ci Sénégal. mën naa wax ne trois sénégalais yoo wala dix sénégalais yoo jël les neuf dinañ la wax ne. mais yéen yaa leen war a def liggéey boobu nag. waaw léegi nag boo gisee ma lay expliquer loolu Tounkara mooy tey aujourd'hui Mass Thiam il a été vraiment décoré par le président. Mhm. jox ko ordre national. mais li waral décoration boobu ce sont les agents de la propreté gars yi nga xam ne ñoom ñoo muyee la mayoo ñoom ñii ñii ma lay expliquer Tounkara maa ngi lay wax ne la ñoom ñu ngi collecté trois mille deux cent quarante six tonnes d'ordures par jour uniquement dans la région de Dakar. donc dama ne agent yooyu tey lu wàllu lépp lu set ci dëkk bi ñoom la côté collecte bi côté balayage bi mais je vous dis quelque chose euh, Tunkara lu sénégalais yi bàyyiwul xel ñun dañuy liggéey matin di liggéey la nuit. deuxièmement mooy ñun ñooy seule société ci Sénégal boo xam ne amuñu jour de repos du dimanche du samedi du tabaski du fête beneen aspect bi mooy Tunkara est-ce que vous savez que ne de la propreté ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi dund misère boo xam ne ci seen salaire yi loolu nag dama koy interpeller le président de la république di ko wax ne ko tey bu réew mi setee ce sont les agents de la propreté mais tey ko ci ubbi bulletin de salaire am Tunkara yow da ngay da ngay laaj est-ce que est-ce que un pays normal war nañoo mën a jël. un agent de la propreté la ñuy fayeeku. bon euh, xam nga am na ci ñuy fayeeku en moyenne cent mille francs mais je vous dis quelque chose tey boo demee Europe. Ah, la mais bul comparer nag Sénégal ak Europe nag yow tam na Pape Thiam loolu du baax xam nga kenn du comparer comparaison boobu moom baaxul non non non ma ne kenn du comparer entre Afrique ak Europe bokkul. mais mais mais mais je vous dis quelque chose dama la wax ne la boo demee Europe maanaam un agent de la propreté xoolul salaire u ministre. Ah, mais Pape Thiam vous voyez. Pape Thiam mais li ngay def nag yow tamit loolu. waaw mais boo gisee ma ne expliqué loolu li ñu erreur méthodologique. non non non c'est-à-dire yow mënuloo jël tey. Sénégal moo koy comparé s'il xam nga man euh, su ma sëriñ mooy Maulana Cheikh Ibrahim Niass Baye Niass ma dane nit soo bëggee avancer nee na il faut nga réyal sa gis-gis à que lii boo gisee ma la koy jox exemple bi mooy respect bi ñu soxla ak considération bi ñu soxla dañ ko war a jox les gens de la province beneen bi mooy Tounkara nga hmm. dimbali ma hmm. yow fekke nga sénégalais yi ñu staan fekke am na ay épidémie yu fi jaar Ebola fi la la fekk choléra fii la la fekk Covid 19 fii la la fekk sénégalais bu ci nekk tey yaa ngi doon daw sa morom mais les agents de la propreté dañoo mouiller le maillot pour sauver la population man xam nga lu tax ànduma sa discours mhm. mooy njariñu agent de la propreté nga ñu bëgg wax mais seen njariñ kenn laam-laamewu ko loolu amul problème c'est-à-dire parce que ñoom seen jàmbaar seen man man maa la ko njëkk a reconnaître man maa la ko bu décorer Mass Thiam parce que Mass Thiam dafa am ñu muy àndal di liggéey ñoo xam ni tey ñun ñëpp dañ teg suñu bët ne que suñu réew dafa gën a set tane na donc alhamdulilah léegi nag loolu nan la war a dellu see si agent de la ah, propriété loolu la ñuy wax mais loolu laa la bëgg a expliquer loolu laa la wax moo tax ma la yoon bi nga jaar moo baaxul Pape Thiam moo tax la damay interpeller le président de la République di ko wax ne ko réew mi bu tollee fii tey ci wàllu hmm. propriété ba mën a set agent yi ko liggéey ah, bien ñoom ñu ngi souffrir waaw léegi agent yi ñu ngi souffrir léegi nag agent yooyu Tunkara maa ngi lay yëgal vingt quinze pour cent des agents la propriété ñépp ci location lañu ñu nekk. foog ñu am euh, fu ñu dëkk bon léegi yow Mohamed looy jeexale waaw avant may jeexal damay. non bàyyi ko déedéet. waaw non taxaw nga jeex waxtu bi jàpp nañu. waaw waaw waaw mais yow la mais état foo mu jàppale parce que liggéey ci mbalit. aywa dafa metti d'accord looy jeexale bon li may jeexale mooy. maay ñaax rek maanaam le peuple sénégalais maanaam surtout la jeunesse quoi. bàyyi faal nanu bàyyi suñu xel quoi. nanu bàyyi suñu xel si manifestation yi ak problème yi guerre yi xeex yi. Baay Faal fii ku fi dee yaa perte de góor yàlla fii ku fi dee bàyyi dem leen ngeen xëy jeunesse bi dañu war dem liggéey liggéey mooy doxoo réew wala ak muñ mais pourquoi yàlla ni sax inna allaha maa saabiriin maa ngi muñ fii dëkk bi fépp la tare. fan la ko yàlla wax si alxuraan. xaw ma ko yaa may dégg bu baax ñun foo ñu nekk ay nit ñu wax ak le peuple sénégalais. Pape Thiam looy jeexale. maa ngi saboté. waaw non. non c'est ça va yow yaa lakkaleeg sa sabadoor Tunkara fatta nga nit ñi quoi mu xuloo mën a dama lay wax rek lu fi nekk maanaam waxal la peuple sénégalais jeunesse bi nekk leen ay nit ngeen dem liggéey yi te bàyyi wax te bàyyi wax comme yow wax rek wax wax rek nekk fii di saaga di yàq der nekk Europe lu leen neex wax ñi di génne seen xott yi ñi génne seen ay nii ñi nekk leen ay nit boo bëggee bës nga xool noo amee bës maa ngi remercier nag Antoine Diome ministre <laughs> ministre de l' intérieur maa ngi koy eh, eh. sama xarit la ak Cheikh Ba. Antoine Diome moom de. ku ku toox yaa mbaa Antoine Diome jàpp Ba. Hmm. Mokhtar Ba maa ngi koy remercier nga xam policier boobu ngay wax policier bu bon la agent wu Antoine Diome la. kan si policier waaw. moo dawoon sama marché yi mais Siteu moo gën a bon mu ngi Mbàkke Siteu baaxul tey Siteu yow laa waxal Siteu Siteu. Eh, yaa dawoon eh, sama marché eh, yi yaa gën a bon. déedéet yow ni ma lay ñaanal yàlla bu la dalee. yàlla xam ne doo amati karaw. arrêté la. amul arrêté non daf ma tooñ nga xam ne nii yàq sama der si dëkk bi nga xam ne nii agence mais dala jàpp ngay tox yàmba mais sa benn juin la yàlla xam ne laaj lan la ma jàppe laaj leen Siteu lan la ma jàppe benn juin dem si télé naan waaw maa ngi jàppe dix mille par ay soixante quinze kilos dugg si cour bi xool génn cour waa may génn portable am tasam benn xool vidéo naan saay moo nekk ne waaw mu mel ne que boo jàppee dix mille problème waxtaan dal na si yow man citoyen Sénégal ah, benn juin la man du ma agresseur man du ma dealer man yamba bi xam na fu ñuy jaar yamba bi ñoom xam na sa drogue bi xam na bàyyi bàyyi leen di sëf baa doole yi lii parce que la loi c'est pour les baa doole la rang ñuy wax li fi nekk baay wala boog wamee Samba Ka maa ngi koy ñaanal yàlla wamee Antoine Diome yow laa waxal de si te agent moom la de dama lay ñaan si te agence Antoine Diome la eh. dama lay ñaan dama lay ñaan te yàlla moo tax waa mais rang muy gaaw boobu noonu waa mooy sàmbaka wax waa mais xëy na dal na ko. ah mais sàmbaka tamit li mu def tamit. mais maa ngi yàgg li du Antoine Diome. gars yi non passé na Antoine Diome. léegi léegi waa mais mën dara moom bu ñaanee. non si dara non mën na ñaan mën na ñaan sax yow sax mën nga ñaan. ñu baal ko man bu demee nan ko baal maa ñaan yàlla. Hmm. maa ngi ñaan yàlla damay ñaan yàlla parce que yàlla moo ne ad'uuni la lakum damay ñaan te yàlla moo tax fu mu ko waxee xaw ma damay ñaan te yàlla moo tax yàlla moo ne addu uni la wax astajib lakum ñaan leen moom may leen maa ngi ñaan yal na yàlla baal Sambaka. bon Sambaka waaw waaw di ko di ko di ko mel. tamit mu baal tamit mu baal tamit xoolal. te nit dof mais xëy na nit dof. waaw maa ngi njëkk classe ni moom dafa tooñ. il n'est pas droit muy dépasser l'état. dëgg la xam nga réewande baaxul. dëgg la. kërim xurum xaaga wax def na ko fi jëm tim président président lu seen moroom mais président yàlla moo ko fi teg waaw yow nag yàgg nga wax loolu moom loolu moom non président yàllaa ko fi teg ndax wa maa umiru illaa li yaabudullah yàlla moo fi teg bàyyi wata pour ñu jaamu ko dëkk bi nag dafa bëri ay naa naafeq wata fii laa far rek lu ma neex wax nit quoi non avant de parler dafa il faut rek ñu waa waagoon Pape Thiam loo jeexale waaw bon li may jeexalee nag message bi maa ngi koy adressé directement le président de la république di ko wax ne ko euh, agent du nettoiement ñoo ma yóbbante nee nañu 12 ans ba léegi président recevoir na tous les corps de métier ba mu des le secteur du nettoiement au palais. président loolu nag ñu ngi koy wax ñëpp. dëgg la pour ñu recevoir ñëpp parce que soxla loolu loolu euh, ngeen ko mérité nag. loolu moom sàccu leen ko jalwaanu leen ko ñaan leen ko da ngeen mérité président dalal leen parce que suñu dëkk. dafa gën a set ndakaaru ñun ñu fi euh, juddoo ñu fi nekkoon deux 2000 diggante 2000 ba 2023 Mass Thiam bi mu ñëwee UCG ñun ñëpp gis nañ mu gën a set di leen si delloo njukkal yéen syndicats yi nga xam ni jàmmal ngeen ko quand même grève boobu ba léegi amu fa ba pare euh, travailleurs yi vraiment nekk si waar wi ñoom ñu euh, kenn delluwul ginnaaw delloo njukkal sunu ay techniciens yi ñu àndaloon yëpp tey ñoom Papy Cheikh Laye ak mu ma gisee ci cadrage bi tey Bira mu moo nekkoon régie delloo njukkal. Euh, Birama réalisation delloo njukkal Pape Maye ci euh, régie bi Abel ci euh, son bi sunu ay téléspectateurs yéen nekk ci àdduna bi duñu bàyyi xel amuñu seen fay ñu leen ñaan suñu borom jàmm xéwal ndimbal ak yërmande ñoom soxna Marie Ciss fële ca Soman yéen ñëpp dig daje ëllëg bu soobee yàlla jàmm ak jàmm